dañ kon loi boobu mat na sëkk ba président groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar almilu ñi ngi dafa am baat bu mu ci dolli nee na a sax ñu di ci yokk virgule kon ànd sàmm jikko yi nee nañ dafay enfoncer une porte déjà ouverte loolu la wax waaye lu waay gàtt gàtt xam-xam di nga nangu ne une loi pénale day évoluer avec son temps masalan viol 1966 loi bi fi ne woon mat na sëkk aajowul yoon ñu ci yokk virgule waaye kenn réeréewul mbir ne viol siif jigéen jéggi na dayoo jéggi dayo boo xam ne léegi duñ la siif yem ci dañ lay siif rey la moo tax toujours ñu ngi massalu euh, njabootu euh, Binta kamara bu Tambacounda jigéen la waaye jàmbaaru góor la euh, donte la xeex na ba saay-saay bi la mu bëggoon amu ko waaye ñàkk na ci bakkenam voilà ci loolu la organisation yu bari sukkandiku def pression ci état ba ñu voté la loi 2020 05 du 10 janvier 2020 bu criminaliser viol loolu mooy criminalisation maanaam kenn dootu leen jugé ci juridiction ordinaire yi mu di correctionnel ak flagrant délit léegi dañ leen di yóbbu cour d'assises waaye criminalisation tekkiwul dañ lay tëral rek rendi la euh, beneen masala drogue loo bi fi amoon en 1966 mat na sëkk aajotul ñu di yokk virgule pour parler comme Almeru ñi ngi waaye trafic drogue bi

li nga xam ne la loi 66 16 bu 1er janvier 66 moo ko jur loi boobu doyoon na sëkk ci wàllu góor jigéen aajootul woon ñu di ci yokk virgule en 1966 waaye en 1966 xel demul góor jigéen bés bu tedd bu day ni guddi woo mawludul nabi fii ci Kaolack nga di fa takk fukki sëy ak benn amul woon en 1966 ñaar fukk ak juróomi lesbienne góor jigéen yu jigéen ñi ñëw fii ci Thiaroye Léona dajji këru benn ancienne lesbienne bu tuub ñu ne ko lu tax nga ñuy bàyyi di delluwaat ci mbaax loolu amul woon ci 1966 kenn nu ko liim ba mu jeex ba bi ci gën a ñaaw te naqari jullit yëpp ak ku dul jullit mooy la nuit du 23 novembre 2020 fii euh, ci bërëb bu tedd bi nga xam ne suñu borom moo wax ci suratul jinni wa anal masajida lillahi jàkk yi sama néeg la ñaari góor jigéen dugg fa 3 heures du matin di sëy loolu amul woon ci 1966 waaw nga bëgg woon wax ne nag loi bi ba tey baax na baaxul de tey yàlla dogal na nag suñu borom ku mën a àtte la ils ont été démentis par le ministre de la justice bi libéré woon góor jigéen ya doon takk say guddi mawlulu nabi le cinq décembre ministre boobu moo leen démentir ñoom almiri ñu ngi wax naan loi bi baax na ministre bi démentir na leen si Sidiki Kaba bañ ko laajee lu tax nga bay góor jigéen ñi lii la tontu. c'était dans l'Observateur du samedi 9 2016 nee na aux yeux de la loi il n'y a pas d'homosexuel lii du waxi ànd sama jikko aux yeux de la loi homosexualité amul waaw ba pare nga naan nag 319 bi doy na doyatul parce que ministre bi si boppam moo wax ci wolof ne ma ma ko ci wolof nee na ñooñu ñu li tax ñu bàyyi leen malgré jëye ji ñu def parce que article 319 tuddul baatu homosexualité kon nag lii ànd sàmm jikko yi def état la waroon c'est-à-dire ànd sàmm jikko ngi taxaw pour réajuster loi bi ndax mu dëppook jamono kon Macky Sall dafa waroon gërëm Babacar Mboup gërëm ànd sàmm jikko yi ndax moom la waroon voilà léegi nag ñu sàmmante na ñoo ngi yoon jaar ci ay professeur de droit ay juriste de métier et des parlementaires souverains ba ñu liggéey ko ba euh, nu mu tuddati matali ne newoon ci article 319 léegi ànd sàmm ji koy matal na ko parce que neewutuñu rek acte contre nature dañu ne l' article 319 criminalise l'homosexualité criminalise le lesbianisme góor jigéen du jigéen ñi criminalise la zoophilie parce que weer wala yéen presse bi yéen a defoon benn reportage fii ci banlieue góor jigéen bu ñu jàpp muy tëdd ak béy criminalise la nécrophilie maa ngi dégg euh, seen président groupe parlementaire euh, euh, président commission des lois bi woon kii xuloo waale Cheikh Omar jaañ bi. ay kii. Ah, Jibril Waar naan xanaa waa ànd sama jikko yi ñoo gis kuy sulli néew di tëdd moom ñoo yaa gën tey ne waxuñu loolu ñiy dem ca morgue ya di tëdd ak néew la ñu wax te am nañ ci ay preuve kon nag loolu yëpp la ànd sama jikko yi lim pour lay bañ a am.